maa ngi lay ziar. maa ngi leen di fay sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak i njabootam ak waa këram te selmal ci ñoom di nuyu njabootu maam Cheikh na Cheikh Sadou Abihi di nuyu xalifa généraux yëpp nuyu kilifa diine kilifa àddina yi xam ne daal bis bi bisu jàmm la bisu ngëneel la bisu yiw bisu teraanga la bisu leer la ñaan sunu borom mu dëxañ ñu ci biir jàmmam mu dëxañ ñu ci biir leeram ndax moom lu mu am lu baax kaneen loo am baaxul walla léppam lu baax daa nañ ci léppam lu baax lii nag El Hadj Samb Sine def lii la waaye fi mu ko defe la fii c'est la famille secrétaire général bi nga gis di madame Ba mu Ndiaye nit meloon ni moom secrétaire général c'est le cerveau c'est le moom nag mooy cerveau kër gi suñ ko amul dañ koy créer ji ak personnel bi fi nekk yépp ñu am jàmm lool former une uni loolu alhamdulilah rabil alamin ki xam ne nag moo sanc la ki sos sanc kooku mooy Youssouma jigéen PCA bu mel ni moom amul déedéet am na yërmande fonk na nitam te foo ne mu ne fa ci loo nekkin mu ne ci kooku mooy Youssouma jigéen. wàllu ko nag Birane wàllu ko Bouba wàllu ko Ndiaga wàllu ko personnel bi fii booy seet famille développement et entraide groupe comme set la waaw groupe bii nga gis nii groupe bi groupe Futur Média bii moom mooy loolu. D'accord. comme set bi nag dama ci juum. d'accord <laughs> am na solo ayca ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo di anniversaire Kouthia bi nga xam ne tey fii la ñu euh, boo doon def tey témoignage ci Samba si lan ngay def mais c'est l'empereur ñiy def humeur yëpp c'est des rois ay nañu trop mais mooy seen chef c'est l'empereur ñoom waxuma ko àddina ko wax te dootul dootul Kouthia wu Sénégal li dal Youssou Ndour a ko dal Kouthia wu àddina la. nga feebar seetaan ko mu am lu mu suuxat ci yow nga tane nga mer seetaan ko mu am lu mu suuxat ci sa mer dañ sa bopp étourdi ndax ay soxla wala xalaat wala leneen nga seetaan ko mu delloo si la nga tuxu ci loolu kon moom am na lu muy def lu xam ni jaamu yàlla la dalay delloo si ci yàlla sunu borom kon kenn melul ni moom ñoom ñëpp a aay na ñëpp ñoom ñëpp dañu aay te fii la am waaye nañu bàyyi xel ni c'est l'empereur. na solo que demoon na euh, ñëwaat. demul fenn ñëwaat këram la ah. mënul dem fenn. am dama ne la. Mhm. demul fen gis nga këram la. Mhm. ki dem du dëpp. Mhm. ñu dem ñëpp dëppuñu moom demul. këram la këram la moom këram la demul fen ku dem doo ñëw sa biir kër bu fekkee ne dafa am lu ñu la yaakaaree ci àddina bi mu am fu ñu la ko xamee si image de marque la te nit du yàq image de marque am moo tax demul fen c'est son image de marque. ayca ñu ñu tàggatoo ko ak li nga xamante ni jamono ji euh, ku ci nekk yaa ngi ciy àddu bokk ci euh, li nga xamante ni tàmbali naa daw euh, ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu communication ci wàllu làmb gi ni mel gis nañu Moustapha Gueye li nga xamante ni jot na ko dal ci combat ki nga xam ne moom mooy Reug Reug gis nañu aussi ki nga xamante ni moom moo di Bécaye Mbaye ak Cheikh Sarr bu Sen TV li nga xamante ni jamono ji ñi ngi leen ciy ŋàññi di jël ay kàddu yu ñaaw di ko teg seen kaw tey noo jàngatee loolu mais loo sa bopp gor moomul wax ju ñaaw loo wax nit rek wax nga ko sa bopp parce que wax ju baax wax ju rafet yiw la sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax Moustapha Gueye Bekkaay kaneen Cheikh Sarr kaneen ak kaneen waxuñu dara lu ay nañu xoolante suñu biir joxante cër yi soo bëggee ma fonk la danga may jox li ma moom ci yow muy cër bi su ma bëggee nga fonk ma naa la jox cër bi nga moom waaye wax ni wax ni c'est pas la fin du monde ndam li génnul Sénégal et nañu bàyyi xel ni yooyu yooyu du dara sport day am vainqueur am vaincu am match nul lenn amu ci dara ñaawu ci bu ñu ko ñaawal Reug Reug doomu Bécaye la doomu Moustapha Gueye la frère Cheikh Sarr la ak ñeneen ak ñeneen am na ñu xam ne dafa neex ñu ñëw am ñu xam ne ba mu neexul ñoom ñoo togg di defar ba mu baax kon nu ñuy bàyyi xel ñooñu sa nit boo ko gisee ci lenn loo xam ne daf koy yàqal wax ko ko wàññiwul dara danga ko dimbali parce que bu boobaa dana xam ne lii nga ko wax dëgg la mu retiré ci les grandes lignes defaru ci ba mën ci defaraate loolu rek du laneen papa jot a xew est-ce que du jot a du tëgg seen liggéey di communicateur lu jot a xew lan waaw yow ba moo yow addi addina ak coow am addina ak coow ànd ci làmb ak coow ànd addina ak coow ñoo ànd kan moo kan moo lay teree wax bi la yàlla jox làmmiñ jël fanweeri bëñ ak ñaar wëre ko ko jël ñaari tuñ bu kaw bu suuf muy sàkket bi mu ëmbe ko ko mais comment soo gisee li nga war a wax doo ko wax lan moo ci ne ñoom waxuñu du ñoom ñoo wax àddina wax mais gis nañu écran géant bi gis nañu yi daw ci télévision gis nañu yi daw ci réseau sociaux yi nañu rafetoo te bàyyi ñaawan ñaaw lu ñaaw li ñu yëkkante suñu biir warul mën a ne warul mën a ne du lu ñaaw loo mën a waxal bekkaay du lu ñaaw lu mu la mën a waxal mënoo ko waxal Moustapha Gueye mënoo ko waxal Cheikh Sarr ñoom mënuñu la ko waxal man mënoo ma ko waxal mënuma la ko waxal bu ma la ko waroon a mën a waxal sax duma la ko waxal ki la wax lu ñaaw bul ko tontu lu ñaaw lu ñaaw fay bari ki wax lu ñaaw bàyyi koog lu ñaaw la muy wax nga téye sa lamiñ téye sa bopp bàyyi koog lu ñaaw àddina atti leen. gis nañu nga xamante ne da doon défendre papaam mais doom bu défendreul bay kan lay défendre. mais non xoolal dama ni yooyu yëpp du dara yooy du xam nga man mën naa ci bañ a intervenir mais dama ci intervenir àddina audité nañu ñëpp ñëpp. audité nañ leen woole ne la nii tëj la rek moo des koo waxal benn xamal na la fukk waaye man soo ma waxalee lu ñaaw man duma la tontu parce que lu ñaaw soo ko waxee lu ñaaw rek lay jur lu ñaaw rek lay jur lu ñaaw day ñaaw di bari rek mais boo ma waxalee lu ñaaw ma noppi bañ la àddu waxal la lu baax mais moo gën mi ngi mel ma ni yow da bon nga wan ma ko man la tey ma wan la la gën a bon bon bon a fay ne yaa rien ay frère lañu ay baay ki doom lañu ay jarbaata ki doom lañu ay maama ki sët la nañu rafetal diggante yi te ba wax ju ñaaw xajul ci sunu biir duma dum je n'ai rien à diir sur ça dem leen seetu ko ngeen wax ko menace de mort ku la ko def loo ko yàq baax na parce que li wóor te wóor yàlla nee na ku la tëkku nga tiit jéppi naa la mere naa la kan mooy yàlla ba lay tëkku kan nañu seetaat yëf yi àddina yàggul yàgg na dañ ne yàggul bañ a yàgg xam nga sam sa sa sa ñetteelu maam xam nga sa juróom-ñaari maam xam nga fu ñu leen denc man xam naa ko keneen xam na ko ay milliards yi at yàlla tëgg ko àddinaam àddina di wéy ñu bëgg a wax àddina eh, amul solo yàggul ba na yàgg nit moo yàggul fi ngay juddoog fi ngay génn àddina di wàcc liggéey di wuy ji suñu borom wax fi lu ñaaw xaju fi def ko fi xaju fi jëfe ko fi xaju fi dox ko fi xaju fi mm-hmm. te ñu ne dañu rafetal lépp.